sant yàlla bu baax alhamdulilah man maa dëkk Ndiarème. waaw laa dëkk tudd Assane nekk fi Médina di liggéey cordonnier mais su cordonnier bi dëgër damay su su dëgëree ba dëgër damay taal sama moto après ma liggéey ci. léegi bu dëgëree looy su dëgëree ma cag-cag mais ku ma dàq liggéey daal amul fii ci amul fii ci Dakar. waaw lu tax too liggéey daal. parce que sinon ay nekk fii la lu ko nëbb nan ko wax ci kaw man su ma suñ créé woon entreprise fii teg ko fii Sénégal barke Seexul Xadim mi ma yaakaar ma def fi loo xam ne day jaaxal sinon parce que man man seul uude bu nekk fii Dakar di liggéey la sinon di ñëw di coppee sama bagage di ko liggéeyaat di ko wàccee ay conteneur. parce que yow foo liggéeyee fukk ci journée bi ñoom liggéey nañ ci cent. non liggéey nañ mille. oui li ma lay wax nii barke Seexul Xadim soo neexee nga yóbbal journaliste am na ko fi taxaw léegi moom xam ne ma daxal bi moom ngeen def déplacement ñu ñu sa place ñu loo xam ne mais bi sax damay copier. donc donc yow uude nga da ngay defar ay dàll. waaw mais bu lal yi doxul da ngay dem jël sa scooter dem cag-cag maa ngi nii Patte d'Oie laa jógee nii doon cag-cag ndax ndax dëkk bu dëgër xoolal. ça ah, ça par exemple les rédactions ne savent pas ça alors que fële la ñuy taxaw rek di ñu wax loo xam ne euh, amul. Bougane xool li maa ko liggéey xool li maa ko liggéey xool li maa ko liggéey ah xool li defee foofu noonu soo defee foog noonu defaat nii incha li sama daal la maa ko liggéey. ah oui macha daal la. gëmuma dara daal dama laa gëm. mais muy ñuy jàmm. def ci gaal yi quatre fois. ah oui gaal bi mujj def soixante-dix morts la. ma bokk ci rescapés bi barke Seexul Xadim su gaal taxawaatee tey damay demaat. ak sama bakkan doom. parce loolu laa gëm. sinwaa yi ñooy yebal fii nit sénégalais comme man. ñu ñëw yor big bi caméra ñëw sama place caméra daal yi may liggéey même pas même pas deux deux ñu wàcc ay conteneur man du mën a jaay. loolu leer na ci xol. sama rak pam sa babal ndey ak baay bu mu dee ci gaal maa ko jàpp sànni ci ndox mi tiw dama demaat. ah. amatoo espoir. ban espoir. maanaam yaakaar daal amatoo. tas na. yaakaar bi tas na. parce que tey su ma nekkee fii tey di liggéey tey di di di di liggéey taxaw ci mit naa bi nga ne Assane Dieng Sénégal mu ngi nii dama ko bañ bëj made Sénégal loolu la fi am am sama logo bopp lépp dama ko am. kon yéen artisans yi gouvernement bi jàppale wu ko jox mu yor dépense boo xam ne këram sama dépense su kër su ma joxee 400000 francs jox pour pere banque dama ko yónnee dépense ci ñaari ci ñaari boobu balaa ñaari weer mu jeex ñu ne lebal ko lebal nañ ko topp xaalis boo xam ne après far la jëm. woote bi ñu woote ngir euh, jàppale ndaw ñi ci yenn euh, maanaam domaine yoo xam ne ñu ngi ciy. man bëgguma cent cinquante mille yi ñuy wax ne cent cinquante mille bëgguma ko man ko téye tey su ma amoon tey li may ñaan mooy damay wax ne nan jël seen yi nekk fii di liggéey même protocole liggéey bu maa doon. ñu encadré encadré la. kon kon yow ànd nga ci li may wax ne. waaw jeunes yi soxlawuñu xaalis. soxla dañu soxla. dañu soxla ku leen encadré. soxla ma xaalis teg leen ci environnement. boo xam ne tey jii Assane nii. waaw dàllam yii day tax mu doon milliardaire. bu bar xoolal. eh recevoir na ma. ak keneen ak keneen. ma wax ne leen soxla ma ngeen may jox xaalis. dama bëgg jam ñaajo. wala fu maa doon. ñu tabax fa entreprise boo xam ne dañ naan eh am nañu demoon def formation kenn ku nekk la nga nekk champion ñu jël la ca nga formé waat ay doomu aadama loolu laa gëm. conseil présidentiel bu dem bi est-ce que bokkoon ngeen ci. non suñu bokkee tamit yóbbuñu ko yóbbu lay doon man soxla ma xaalis de pour jox ma xaalis bi soxla ma ko nañu tabaxal loo xam ne entreprise lay doon wala asile lay doon wala loo xam ne lu mag lay doon loo xam ne dañuy mën a jëmmal suñu bopp ba ba kenn duñu may cent francs wala wala wala ñu ñàkk la. ba ñu yëg ñu li liggéey mën laa jariñ wala ñu ñu ba li ñuy liggéey mën ñoo jariñ maanaam mooy fexe ba li ñuy jële bitim réew waaw ñu lépp loo xam ne mën nañ ko suñu bopp duñ ko wuti bitim réew. non non dàll yi nga xam ne yéen da ngeen koy defar. waaw bu ñu leen aaroon tey. waaw dàllu chinois yi duggul fii. waaw dàll yi ngeen di defar ngeen mën koo jaay. barke Seexul Xaddim lan ñu may benn année bu ndaw rek ñu ne dàllu chinois dugg fii ni Sénégal. ñu gis ñu def fi barke seen xadim loo xam ne day raw si nooy si nooy lu ñu yor machine. ba pare encadré la en ba liggéeyul loxo man benn loxo laay liggéeyee un mois ci liggéey mille paires. te man dàq liggéey. dama dama wax sax man beneen affaire. dama bu ñu demee. waaw ba ñoom comme tënk nañ leen mënuñu ko. waaw suñu alkaati yi gendarme yi maanaam homme de tenue. force de l'ordre. waaw mat nañu trente six mille au Sénégal. waaw bu ñu jëloon ñooñu rek ne seen dàll seen ceinture. waaw dootuñu ko defaree lu mooy Sénégal. waaw loolu rek yéen bu ñu leen ko joxee marché la. plus casquette plus montre plus lépp ak lépp lépp. noo indi ba sàncaat ñun teer yi nii mais pour quoi yi ñuy sol ñu ko importé. loolu la pour lan te ñu ko mën liggéey nekk fi ak police ak ñeneen ak ñeneen pourquoi. Mhm. teer yi nekk fii nii ndax nit mën naa gën génn sunu yére wala sunu dal eh. soo ko defee ñu ne dof la. Música